lii di mbay mi ci biir ville bi nemmeeku nañ ko bu baax a baax fii ci Ziguinchor loolee nag di faral di jur ay conséquences ci askan wi ñaari agriculture yooyee nag mënees nañ ci jàpp li mel ni bio ak chimique bu ci nekk am na ay avantages naka noonu itam ay loraange yi nga xamante ne nag mën na ko jur askan wi. boo defee agriculture sans ngay utiliser ay produits yoo xamante ne c'est chimique c'est-à-dire dafa am problème ci nit ki bu ko consommer c'est très c'est très dangereux mais nit ki bu nekkee day utiliser benn agriculture boo xamante ne du laal produit yoo xamante ces c'est chimique baax mais tam euh, boor boobu dafa am problème boo xamante ne booy def tey sa agriculture donc nga koy protéger c'est-à-dire dans les def sa clôture pour moytu tout, yi ou a qui faut, foofu dugg mais agriculture chimique boo xamante ne boo ko utiliser tay. da ngay kii boo c'est-à-dire da ngay def produit yoo xamante ne c'est c'est un peu dangereux. buñ sukkandikoo ci kàddu ki nga xamante nag xam xama màcc na ci li mel laataa ñi soobu ci mbay mi ci biir ville bi nag dafa am li nga xamante nag war nañ ko mën a def ngir moytu yenn loraange yi na ci mbirum wérgu yaram. toujours day am problème yoo xamante ne day am problème de euh, cancer parce que tey boo lekkee loo xamante ne dafa am produit chimique toujours agriculture produit yu ñuy utiliser dañu dangereux bu. baax te boo ci kiiwee day am ay cancer day am problème cardiaque day am problème pulmonaire. ceeb bi da nga yenn saa romb ci kër yi nga gis ceeb xam nga loolu mun na favoriser yooyu pour ñu mun a développer wu ci ci biir dëkk bi voilà te yooyu moom fu mu nekk rek ay feebar rek lay jur def nañ constat bi ni maanaam nawet bi lañu gën a bëri. ngir safara yele problème Nak service d'hygiène jotna ci addu sakku ci askan yu nak ñu bàyyi seen xel baax baax. ñaax askan yi rek moy nañu bàyyi pratique bobu euh, parce que lolu ay fièvre rek lay jur ay fièvre rek lay jur wala ñu bàyyi di di bay ci bir dekk bi wala ci bir kër yi waaw lolu manam loraange rek lañuy jural quoi euh manam bu heure yi nii jotee dañu wara a euh, kii kër défricher à tout moment bu ñax amee nii ñu dindi ko maanaam wala ñu jënd herbicide ñu pomper kër yi ba kër yi set wi. bi la yëngu-yëngu nemmeeku nañ ko bu baax a baax fii ci commune bu Ziguinchor ba tax na tey jii mu ngi faral di jur yenn conséquences yi nga xamante ne askan wi moo ci loru ba tax na tey jii nag ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci li ni mel ñuy sàkku ci ñoom ñu daal di sàmmoo ak yenn mesures yi nga xamante ne nag digle nañ ko laata askan wi di gën a loru ci li ni